waaye ci biir xeex yooyu ak weñ yi ak gunóor yi xeex boobu am na ci benn xeex bu ci lu ci feeñoon muy jàngoro ju ñuy wax déng amoon nañ ci benn jarak benn xale bu jigéen njegemaar bu am fukki at ak benn mbaa fukki at ak ñaar boo xam ni jàngoro jooju da ko daloon bi mu amee la ñuy jóg taxaw ni ñu waroon a taxawe ndax loolu mooy eh, eh, taxawaayu euh, euh, fàggu ak Euh, euh, feggandiku bi ñuy bi ñuy bi ñu fi bàyyi ci li ñu daal di jóg dem ca kër ga ma fa fa bi dëkk jarak bi pompe kër ga pompe ñeent fukki kër yi ko wër ndax yoow yi koy joxe euh, yoow yi ab naawam gaawul te maanaam dafay yoowu xaw a tayyal moo tax nu dugg ca koñ ba dugg ci lu ma ñaari téeméeri kër ak ñaar fukk ak juróom fu ci nekk ñu dugg fa xool fu fa am luy taataa ndox gîte larvaire fu nen fu yoo mën a nen tojaatal fa maanaam tàggum yoo nu nu yàq ko loolu def nañ ci def nañ ci ay jéego yu mag a mag a mag ci ndimbalal yàlla aussi ak ñaanu sëriñ yi ñaar ñu baax ñi eh, boo jàppee ni keroog bi ñu demee ci xal général des Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour bi ñuy wax ak moom ci loolu dafa ni nanu ñaan yem fi ñaan mu yem fi alors euh, mel na ni ñaan googu nangu na ndax abaatu du beneen cas waaye li ñuy wax rek mooy bon euh, borom kër yu góor yu jigéen yi nañu bàyyi xel ci luy taaju ndox waxtu ba waxtu ba dellu si kër gi rek mën naa jur yoo te yooyu ñooy joxe jàngoro yi bon xeex deng bi du dara lu dul xañ ko tàgg mi muy nene na ci ñëpp jóg du jàngoro joo xam ne si euh, vraiment war na war na noo mën a géttan war na noo mën a tere nelaw war nañ ko mën a régler nun kër ci biir kër yi ci biir quartier yi ci biir ville yi te docteur du jóg du ci amu du ci amu yoon bu nu jógoon ni nu war a jóge docteur yi bu nu amee seen i garab toogit du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu gis ku ñu faj ndax dana fekk yaay yi ak papa yi ak nijaay yi ak doom yi kenn ku ci ne neen na kër gëm dëkk yoo du fi am ndax yoo du fi am fu mu nene loolu daal noo ngi koy wootee noo koy noo ngi koy koy kii mooy mooy mooy woote bi nga xam ne moom lu ñu kilifa yi digal muy euh, chef service national de l'hygiène région médical médecin chef bi loolu la digle loolu la sëriñ bi digle na kenn ku ci ne taxaw ci vraiment ci googu fànn